Raja una, ಕೊಲ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಅಸಲಂಗಾರ ಆಸನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಂಡಿಪಾಟ ಪುರುಷ ಇಂದು ಕುಲಾಟ ಕುಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದಾರಿಪಿತಿ ಸನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಕಿಸಾನ್ ತರಪಿ ಪಾನ ಸಾತ್ರ ಯುರ್ಪಲ್ ಪನ್ ಇನಾಗಳ ಮಾಗಪ ಪಸಿನರ್ಪ ಅಹ್ಮಲ ಬೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ ಸುಗತ್ ಪಾ ಇಶಾಲ ಮಾಗನ ಸಾತ್ರ ಯುರ್ಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಪೈ ನಜುಮಲಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರತಿಮಾಸ್ ಮಾಗನ ಸಾತ್ರ ಯುರ್ಪಲ್

e koy wurge mana den de njota ngaru nda koy kam ref mene fo xa tes o ndeɓes koy no paana le andoona yee te refu Poulay Diofior i mbog département fe a ndax commune de Loul Seseen wiin waaye nak e i layka koy wene andoona yee te refu délégation fe a jega yeg nit ke koy na ke ndefna Karim Sène

Njaay a wali bu Diofior jegem jegem a bi sifena jegem jegem bi Njaay a wali a wali mooy borom demb lu ruf Thank you.

jangar li la la ni allahu akbar Delegation Michelle Medela Community Association, and Michelle Calvin Winnie. délégation Sidibé Diouf Sidibé Diouf war na doon commune de Missirah kon bu nawee mën naa ko ñor aussi doyalul ak tamit sa ko àndal ak tamit kon kon tamit parce que képp commune boo xam ne jege na wala yaakaar waaye arrondissement Toul laa jege na wala yaakaar ay jëgaaw laa jege woon di dund. kon kon ñàkk war a ñàkk production ak tout à fait pratique yi nga xam waaye dara dara dara ko sor so puat ad min sara abu rasar sondom Admin min sara dana support. puat. Acha arbi

Ibou ee <laughs> eh, Amady nee na doole yàlla rek. Idi Bungarin à gauche. Il continue également critique ces centre de formation professionnelle. Alors maintenant, c'est l'aspect pratique qui est utilisé. L'aspect pratique maintenant qui est mis en jeu au niveau du Sénégal. Allez, Hawago. le centre de formation professionnelle aussi au Mais Maintenant, sans plus tarder, en Gaïga, qui est la journée de merci merci merci pakala kono cinquante tawi en tarikta anne jambari ɗum ko ko ɗen mbaleyno ɓe gartina anne jam kala parole voilà idugu فستكون فوق كاين ونكون فوق ينكور كل هو سبحانه الحق ونفق وأجعلنا رؤيا أجعلنا مدمر رؤيا بل نسبة جمعين يسلي كان تفهم أجعل رؤيا أجعل رؤيا أجعل رؤيا أجعل رؤيا سلي ويما كأننا بيكا بلتوه

jangan, Satıbı, Müslüman Ke bawah. jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, Jangar datang Jangar. Jangar eh. Jangar. Lu boleh def. Eh, wajib dan jangar. oho ehe eh. Idi Bouldor Ibou Ndiaye Obeuly combat bi choc la Ibou Ndiaye balaa Aat Mbine Sarr Asathi Mbaye Daara gën a nam Moussa Sa ci mboy oo oh, jaw doo daan na ko demi-finale ba Perez Perez bu Palmarin ak Diaw bu Guédiawaye lii la la di eh eh, eh, eh eh waay waay waay ay waay ay ca demi-finale la Perez wala Pascal bu Palmarin ak Diaw doo bu Guédiawaye ndeysaan ngeen ñi si bu Réveil TV bi kontaan si yéen nee tout droit rang muy ya abonné Thank you. Perez Palmaré Diaw doo Géejawaay Perez eh Madu Njaay mboot waay eh Diaw doo mboot na ko mboot bu rëy Adama Ngom Mbine Sarr Obelia Rouge Adama yor ndambulu vaccine جاي ولي أن بن سارة. la reje fa san ye. Déthié Fass o retanga na saate ko yoonta yar fa tegin regle naak muut ga tiima buña moytooxa e me kude ngimna rek a jega ma den roonuna ay ram le judum may ma mi xoya nume Ndiaye puus na ko de bañ dugaat ci Ak Bine Sara Aïcha mbër nuyu nañ la. Eh, ñu ngi lay fay Lamine. Modou Diam Terry en final. waaw gis nga ne bilaay moom la yàlla dogal de moom. premier lamb après koor gi. waaw ok noonu la après koor gi. <laughs> non min naa loolu moom. waaw min naa ah. premier lamb après koor gi moom min naa ko. Ah. Ah, bilaay. avant ah, loolu dañ leen di baalu ak nag baal leen ak di ñaan yàlla boole baal ñëpp ñu fekk ko at yu bëri mais noo gisee lamb ji non lamb ji moom neex na moom macha allah moom neex na trop sax waaw waaye jëlee nañ ko daal dem ba tey yéen nag fi ñaata jëli nga am soog a si final ah, jàppatu ma ko daal wax dëgg moom. Ah, waaw jàppatoo ko. waaw jàppatu ma ko final war a bëre duudu baas bu yaayee. noo gisee final bi. non comme nu ma def premier tour rek ba egg final rek. mos nga bëreeg moom. non déedéet mosuma bëreeg moom moom. Mhm. léegi looy wax say supporters ak waa di bëggee rek sama supporters yëpp xam nga su ne kulu sa laay wax bu ma supporter maa ngi lay bëggee bu baax. waaw di bëggee na sama waa dëkk Pont Sarène foofu laa dëkk. Mhm. waaw leen bëggee bu baax a baax a baax. waaw di bëggee sama grand sama lépp. muy Mbaye Diouf Pont. waaw maa bëggee bu baax a baax a baax. bilaahi di si jàpp normal moom. waaw kooku mooy sama lépp bilaahi walaay. di bëggee sama gars yi ma àndal rek. mais si campagne yi xat xabtal bi lan la gars yi tey seen yaram na. gars yi dama si naan waaw lii moom xaalis bees la. waaw. <laughs> <laughs> barki yàlla. waaw yooyu noonu la. confiance leen unité yow bëgg leen final. waaw ok bàyyi mu ragal. waaw. ah jaayam ko la meilleur gagne. ok jaayam tout droit. Doudou Bass lañ koy wax bu yaay siyaar nañ la. eh Lom ma ngi lay bëggee. naka mu dem jàmm. nice nice. Doudou Bass en final. gis naa ko de noonu laa demee. ba mu ko déggee dañ fi di bëree. waaw waaw day final ñaata combat nga am maa ngi yegg si final. man est-ce que ma quatre combat. Ah. waaw waaw. mais noo gisee lamb. ah lamb ñoom nee na nee na trop. Ah. waaw waaw nee na trop moom. final yoo rek bëre ki nga xam ne moom mooy Modou Diam der bi Pondou Sarene xam nga ko bu baax. waaw xam naa ko nii rek. mu ngi ñu bëre quoi xam naa ko dama koy gis nii rek. Ah. waaw la moom. Ah. waaw waaw. loo gisee final bi. bi ndam rek. Ah. ndam rek la waaw. loo wax sa supporter ak waa yaayam. maa leen leen sant rek leen gërëm bu baax quoi. waaw maa bëgg waa yaayam yëpp. xam ma seen béy quoi. bilaay la ween. man la waa demee. yaayam yaayam lamso. kër la rafet na ka nga jàmbaar nee na am teelay

Epande nyamba bamege gema dofagere Ejo sane nango nyola ada jambar tamno gore Awau, na kume batu Sweet prediction like that Ya moo jëm tëri sol na ñaari naax combat bi jeex na jox nañ Modou Deme benn victoire jël na poids léger ba. Ibou Ndiaye man ziar nañ la mbër. la mbër. lépp jaamu. lépp jaamu kay. Ibou Ndiaye dafa raaroon avant koor bi Ibou Ndiaye fu mu nekkoon. waaw Ibou Ndiaye dafa nekkoon si boppam rek. Ah. waaw bu baax. après daa uniforme bu garaaw préparation bi nu mu demee. waaw ànd seeg sama coach yi rek. ak gars yi nga xam te ne dañ may jàppale yàlla bëgg mu li bëgg. xam nga inscrire ma boo xamante ne coach yu baax xam nañ ne man borom jox laa. mais balaa balaa ñëw sori dañ lay jaale ndeysaan ki nga xamante ne. waaw sama grand sama grand Moussa Diouf. di ñaan yàlla suuf ayof ci kaw. waaw lépp suñu grand Moussa Diouf. Ah, namu naa ko trop. di laax i wagaay parce que moo ma doon préparé. di ma yóbbu entraînement di ma jàppale. di ko ñaanal jàmm xam di leen sant Lamine di nga ñaanal sa tege bopp sa tege bu mag parce que da ngay dundal làmb xam nga di sant yàlla bu baax di gërëm sama mbokk yi sant bu baax séeréer di sant waa Joof yow bu baax a baax a baax aw ma seen fay. Ibou Ndiaye ñu gisee Ibou Ndiaye ngay jéegal mais Ibou Ndiaye tey daa ànd ak sëriñ bi lu ñoo ko waaj ah. waaw dañ ma dañ ma dañ ma waaj a làmb ji bu baax jarul kii quoi dama war a dal jël làmb ji ki nga war a bëral jaw doobu géej waaye xam nga ko waaw champion bu mag jaw de ah, ah, di ko di ko ñaanal rek ah, jàmm ko le meilleur gagne inshallah rabbi atta ko le meilleur gagne na bañu pare mbër siyaar nañ la delloo siyaar bu baax a baax yow doo bu géej waaye xam naa la Adrien Senghor bu baax yàgg na waaw premier sortie Adrien Senghor da nga final waaw final waaw da nga soo génn si àll bi wala waaw waaw waaj si àll final waaw inshallah waaw loolu noo gisee lamb waaw taw féex rek sant yàlla bu baax baax lépp lépp ñu delloowaat ko si yàlla suñu borom rek xam ni tamit kenn mënul kenn ñu ñëpp ay sportif ne waaw mais lépp lépp rek c'est le travail qui paye waaw waaw lu ma la doon wax rek wane wu ma yaafus moo tax tey lii rek moo mun a am di delloo lépp si sunu coach su bat kii Golo moom moo ko def si ñun rawatina suñu leader Balla Gaye 2 di bëggee waaye ko dalit Balla Gaye 2 yëpp ak suma coach badu depuis France borom Paris ak suma papa Prosper Mendy moom lépp dañ ciy jàpp si combat waaw loolu la quoi ki nga waral bële final Ibou ay mbër ne xamante neen bu baax parce si lamb dóor bi ma gën a ba ma a prouver a final bi bi dañoo war a bëre rek wane ful jom ak fayda rek lu ñu denc ñu génnee ko comme maa ko gën a féete xale du tee dinaa war dinaa def lu war moom tamit naa def lu war mais dinaa ko cër bu moom moom mu delloo ma mu delloowul cër bi tamit day ñaaw ci moom rek waaw jaajëf waaw dal jàmm rek ñu xam ni tamit ñoom a tout droit waaw Sénégal l'arbitre sifflé na Ibou Ndiaye ëppali bu Diofior wala ëppali bu Parcelles ak Diawde Diawde bu Guédiawaay ñu ngi si kaw Ibou Ndiaye moo ñu woon gannaaw borom jàmm ruus li la demee Korité tombeek mardi le 3 Ibou Ndiaye mu koy busulu